Serigne Ahmed Fall représentant xalif général des Mourides ci jiite kuréelu ñaar rakk Cheikh Al Khadim waaw lii ñuy dox dafay aada di tradition buñ dee dëkk mël màggalu Serigne Touba bi ci Ndar màggal googu di siiwal li xamle jëfu Serigne Touba ci le 5 septembre 1895 dina ñëw ci sunu kilifa sunu waajur muy xalif général di murit muy Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te ñëw jil si ñaan pour liggéey bi donc tey jii da ngeen dajeel. ñu ñëw fii ñëw jël si ñaan ki bu ñu fa jógee dem kër maam Cheikh Ibrahima Fall yóbbu njaalu kuréel bi ndar yëpp loolu moo di tànk yi xanaa bég rek ñëw dajeeg sa sëriñ sa waajur sa kilifa mu rafetlu liggéey bi ñuy liggéey wax nu ay kàddu yu dugg ci xol ngeen dégg kàddu yooyu def naa ni yéen ñii journaliste yéen ko man yéen ko dax commentaire ku nekk waaye wax ji mu wax rafetlu liggéey bi rafetlu taxawaay bi rafetlu njàmbaarte bi loolu ku nekk dégg ci yéen te kaddu yooyu ma tudd benn bu nekk ci kaddu yooyu sëñ bi moo ko tudd wax rafetlu liggéey bi wax ni sëñ Muntaxa Taqi moo ko yebal mu ngi ànd ak ñun ci liggéey bi tool ka rafetlu itim ni nu tëralee màggal gi ca tàmbali ba muy ñetti junne ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñett kaamil yu ñu jàng def ko addi bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Al Khadim di si ñaan suñu muntaxaa na si na fi yàgg te wér ñu teg ci kooku ñu tàmbali ko depuis le 22 août teg si le 28 août ñu def concours tajwid bu dajalee daara yëpp ci ndar suba di ajjuma ñu war tëj concours tajwid boobu joxe neexal jëm ci gone yi dafa dàq jàng alxuraan waaye joxe aussi ay teraanga jëm ci borom daara yi borom daara yi nga xam ni ñoo ànd ak nun saytu mbir moomu waaye daara yëpp jox leen ay euh, keesu kaamil téere pour ñu commencer démarrer ba ju nekk bibliothèque nga xam ne duñu bëggoon fii ak ñetti at bibliothèque yooyu mat waaw buñ ci jógee loolu ñu def benn conférence boo xam ne dafay jëm ci euh, Serigne Touba ak alxuraan Serigne Gana Messere di ko def ñu salaak sëñ bi wax ko noonu sa ëllëg sa muy euh, samedi ACR ñu def bis boo xam ni ngontu Cheikh Al la wax si diggante sëriñtuwaa ak maam Cheikh Ibrahim Fall ak Serigne Touba ak maam Diarra Bousso muy bis bu mag Serigne Abdoulaye Diop Bichi di ko waxtaan. Euh, bis ba sa topp muy dimanche bis boobu Serigne Touba julli foofu ci 10 heures ci pale ba bis boobu nu jagleel ko xasida ni sëñ bi defoon fii woote fa bisu xasida nu tam nu woote bisu xasida di si ñaan yàlla indi jàmm ci réew mi. mbas mi jóge fi ajuma ji itim dinu ñaan noon jàkk jàkk yëpp ñu ngi koy def at mu nekk nu wàcc fa ay kaamil alxuraan ci benn ba fukk lu ci waay man waaw wax noonu sëñ bi itim ni ren feebar bi am ci ci réew mi ak ñàkk service dor bi ñu ñàkk service dor ci màggal gi moo tax nu wax délégation yi daan ñëw yëpp nu jàngal nu bisu sa dimanche ja ci suba ku nekk jàngalu benn kaamil ba foo sa doole yam nga jàngal nu ko def ko addiya Cheikh Al waaw kooku wax nu ko euh, sëriñ bi leeral ko bu baax ni xam ka ndax ren ndax mbas mi moo tax état bi mënul joxe service dor comme mën ko joxe service dor nag indi nit ñi ñëpp jóge fu nekk te amuñu doole am nu kattan boobu ci service d'ordre moo tax ñu wax ñëpp nanu muñ benn at rek ndax màggal gi fii ba àddina tukki la ñu muñ at mii euh, ku nekk fa nga nekk sa dëkk nga jàngalu ay kaamil alxuraan jég jégle ka Cheikh Al Khadim boo berne itam ñu santal la gërëm la waaye ndar ci ndar moom programme ba fa daan am programme boobu dafa am lépp dara du si wàññeeku te lii ñu wax itam duñu ko def ci ndigalu sëñ Maamoor Mbàkke ñu wax ko sëñ bi sëñ bi si lool kontaan ci lool ñaax nu lool ci liggéey boobu waaw xam naa ni li sëñ bi wax yëpp man bi sëñ bi di wax ma dégg daal yéen yéen a ko gën xam waaye daal loolu moo doon euh, te jataay bi ak ak sëriñ bi mu yaatu lool jigéen ñaan bi sëñ bi ba mu ni yàgg na lool yàgg na lool yàgg na lool ku mu nekk gis ngeen ñaan gi beneen ñaan la beneen ñaan la kon du ñaan rek sëriñ Mountakha Mbacké sunu kilifa sunu waajur euh, mu yàgg fi lool te